asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am ak bëgte waxtu bu ne ni ngeen koy defee ni ñu ak yéen ngeen ànd ak ñun choisir la chaîne leader chaîne askan wi Dakar People ñuy siiwal di feeñal ak woyalee borom xam-xam fépp fu mu nekk ci biir tey ñu ngi fii. dalal kilifa borom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu kenn dul naatable ci biir ak ci biti ñu xam ñu gën ko xam ci Serigne Moustapha Sène Xelkom Serigne Moustapha Sène Xelkom nuyu nañ la. salaamaaleykum wa rahmatullahi nuyu baax di leen siyaar si jëwriñ ji nga àndal ci caméra baax di siyaar kilifa gi nga xam ne it moo tax jotaay bi am. ñun di siyaare bu baax a baax a baax asalaamaaleykum. ñu ngi lay fay Serigne Moustapha Sène Khelcom tey nag ñu seet si la bu am solo ci xam-xam. laaj ak yaakaar naa ni waxtaanee pàcc yu bëri ci mbiru xam-xam macha allah waaye tamit waxtaanee réew mi. waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne jaamu yàlla yi dañ koy faral di jànkonteel. te waxtu bu nekk bu nekkee gàllankoor si ñoom seen xel du jub mukk. ci jëmm yu mel ni Serigne Moustapha Xelkom. Ah, ah, pour suñu borom defal leen ci saafara. Serigne bi tey suñu question bu njëkk rek bëggoon naa ñu def benn taxaw seetlu amale ko ci mbiru samp te umpale wu ne mbirum samp. Ah, nekk na lu am am solo. samp ci wàllu place. samp ci wàllu kër. samp ci wàllu sëy samp si yeneen ak yeneen yaakaar naa nekk na pàcc bu am solo. te képp ku xam Serigne Moustapha seen xel kom xam ne suñu borom daf ko ci defal ay tegtal yu bare bare bare macha allah Serigne bi bëgg naa nga ñëwoon ci mbirum samp waaw Serigne Moussa ñu leen dafay baax mbirum samp moom képp xamante ne yàgg nga ci réew mi ci diggante Kajoor ak Bawol xam nga ne am na fi samp ci wàllu kaaraange samp ci wàllu bayre samp ci wàllu place samp ci wàllu sëy samp nit te loolu it yëpp bari na coow lu mu jur ci nit ñi waaye man nag suñu borom dogal na tawfeex gi ma ci am li ma koy defaree lépp alxuraan ak addis la. Mhm. alxuraan laa koy liggéey ak tur ak ak ak ak tur yàlla. Mhm. bisimilah samp nag moom dafa ndax bu njëkk buur lañ ko daan defal. Mhm. samp buur wala samp président wala samp waaye nit ku ne rek war naa am sañ-sañ samp ci kaaraange. ndax samp gi bu ñu la ko defalee tey dana la jàllale ci lépp luy kaaraange. ndax buñ la ko liggéeyee borom bi képp ku taxawul ne la mën na laa liggéey ne ko wax dëgg boo ko ñëwee wala nga ne ko boo ma liggéeyee dama xaybu képp koo xamante ne defal nañ la ko ci kàttanu suñu borom mm-hmm. képp ku la liggéey naa dem ci xaybu buñ la sampee ci wàllu kaaraange it noonu mm-hmm. la ko la topp di la aar mm-hmm. ci lépp loo mën a nekk ak lépp loo mën a dugg ñoo cay ñoo cay ne maanaam lépp lu ci jëm ci wàllu kaaraange yow moom mën nga ne mucc nga ca moo xam cat la moo xam làmmiñ la moo xam liggéey la moo xam liggéey bu doomu aadama def la moo xam liggéey bu jinne def la moo xam liggéey la boo xam ne wolof da koo def wala lakkat def ko lu mu mën a doon bu ñu la liggéeylee samp bi ci kàttanu suñu borom loolu moom mucc nga ci mënees na sa koy liggéeyal gone mënees na koo liggéeyal mag mënees na koo liggéeyal jigéen mënees na koo liggéeyal góor mënees na koo liggéeyal ki nga xam ne day doogu judd sax mënees na koo liggéey nga xam ne képp kuñ ko xasee defal daal yow moom na mën ngaa waat ne mucc nga moom mucc gu wér nag mucc nga ci lépp liggéey buñ ko defalee ba noppi sëriñ boo toog mu ne la dañ laay liggéey mbaa catal la jàpp boo ko ñemee nag waxoo dëgg te xam ne loolu moom amul sax ma dem te ñëw waaw macha allah <laughs> Moustapha Sène Khelcom leeral yi am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon mbiru samp bi yaakaar naa ni mbirum mm. am solo mm. képp ku la xam mm. xam ne suñu borom defal naa la ci tawfeex lool lool képp koo si bi buñ mm-hmm. jafe-jafe yi gis nañ ni guddi am sëriñ mhm. lool. incha allah rawatina ci wàllu sëy. Mhm. xam nga sëriñ bi jafe-jafe ci wàllu sëy dafa am ñetti xeet ndax sëy problème bi dafa nekk ñetti mbir yu koy sabab. Mhm. jafe-jafe ci wàllu sëy dina njëkkee ci can maanaam can dina indi jafe-jafe ci sëy mooy maanaam bëgganteeg nit su borom dem ba ngeen war a dencante nga dem lépp alalu jàmbur. leb kii leb kii ñëw jox ko ndaw si boobu sëy mënta ñàkk jafe-jafe ndax alal yi ñàkki gor ngoo ko tëggee mhm. kon sëy boobu faaw jafe-jafe duñ mën a ñàkk ndax alal ju léwut moo moo ko takk mhm. te sëy a bàyyi xel ne maanaam ni ni julli mel mhm. ak koor noonu la sëy mel laab gi mu laaj loolu alal jooyu dugal ci wàllu sëy war a mel dafa war a laaj ci zaahir laab ci baatin beneen problème bi ko waral sëriñ si am nañ ci part de responsabilité mag ndax dañuy gis kilifa gu toog ci jot télé yor sa benn kayit bind ci xarafu xarafu nuuraan yi yëpp xarfu na taxamay nit woo la ne la Moustapha la tudd nga ne ko satabi an naariyu la kee tudd faatu woo nga ne ko satabi hawaayu la nga boole leen ñoom ñaar loolu képp sëriñ bu ko def xamal ne sëy boobu nga def yaa indi jafe-jafe ba mm. ndax biddu kenn du ko xoolee noonu mm. ndax loolu li sëriñ si war a xam mooy wàllu métaxama araf yooyee ñuy jàng loolu du araf du araf kii waaye araf ya ay araf yi néer yu turabika may da mais nit ki moom moom mooy tamama nit boo ko xam turu way juróom loolu mënul ñàkk kon problème boobu nag bokk la ci nga xam ne Serigne Seck moom danaa ci gën a def ay émission leeral ci wér wér wér ni ko Serigne si ndax bari na yoo xam ne ñoo ko indi mooy jafe-jafe yooyu ci wàllu sëy ñaareel ba wàllu rab dina ko waral waaw am na ñoo xam ne it maanaam liggéey dina am seen diggante waaye lu ci mën a doon man Cheikh Moussa Karim bu ma suñu borom tamit lenn am na ci mooy nopp jigéen tamit dina waral sëy te problème am mooy nga bëgg jigéen bëggu nga nopp ko dem ba liggéey bi toj sëy jafe-jafe yooyu am loolu tasxiir googu loolu dina indi problème léegi a xew nag man ma ko xoolee ba xam li mu doon saafara dana am ndax bu fekkee tey maanaam lu mel ni ay rab la su xoolee yéen ku ku ku ci rab yi ci mu ne ko moom

maanaam mbirum seet. Mhm. xool parce que bu mhm. ah, yow jëriñ maanaam man su moom dama see defal xaas li naan xaas dama ko cee am ndax asraar man li may wax man Moussa bu ma ne dama cee naan te dama cee màndi lool. macha allah pàcc asraar yi. Mhm. man dama koy jàngale ay doomu aadama. fi ndoon man la ma formé ci ay sëriñ ma ëpp nañ ñaar ñoo xamante ne ci sama barke asrar ci li ñuy dund ñoom seet nag dafa bokk benn ci pàcc yi nga xam ne dañ cee amuk jagle moo xam maaliku jawaas la moo xam baaban la moo xam ramli la moo xam seetu rawxaan la bu mu mën a doon boo jokkoo sama soirée ci am lu sedd saxol ndax seet moom dafa dafa yaatu dafa yaatu lool ndax maaliku jawaas seet la sëriñ sax xam nañ li may wax a roxaani baaban baaban xëy sa nangu yooyu ñëpp xam nañ ko seetu seetu roxaan la ramlu loolu ko saalika bari na waaye gum ci mën a doon man moom loolu li ma ci wax ni nañ ci jokko rek boo jokkoo man ci kàttanu suñu borom lépp loo xam ne war nga koo xam sa wàllu dund war koo xam sa bu fekkee tawat joo nekk la boo xam jafe-jafe danaa la xamal la ci solution ba li may wax nag mooy man moom képp ko ma woo mën ngay jàkk may woo ñu képp ko ma woo direct ngay jàkk ngay ngay jokkal waaw loolu moom seet moom ak seet gu mu a doon ndaxte it xëy na sax zaahir moom waaye baatin moom leen la mm-hmm. waaw am na nu ñuy jokkoo sax bu am na àll ñuy fekk moom mën na laa wax lépp te duñ ci dara loolu moom suñu borom def na ko moom waaw waaye nag saayir si moom mooy seet gi rek hmm. te seet it si lañ ko jàng ndax mënta ñàkk hmm. ndax nit mënoo wax mënoo xam saafaraam te xooloo ko hmm. loolu moom mënul ñàkk loolu moom bu yóbboo sëriñ sëpp bu taxaw jàng lan mooy seet seet moom nit ki te xamoo lan moo ko téew ndax lu mën a doon seet faaw mu am ci yoon su fekkee nit seet la koy xamal su fekkee sarax a génnee seet la koy mu la koy xamal kon sax moom am nañ ci tawfeex goo xamante ni ku ci jokkoo ñu di nga sant macha allah sëñ Moustapha seen xel comme leer bi am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon mbiram seet yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee seet nekk na lu amoon solo macha allah bëri ay bunt tamit suñu borom defal na la ci jagle macha allah ba képp koo ci jëflanteel suñu borom defal ko tawfeex sëriñ bi bu ma ci pàcc boobu sëriñ bi mënu ma la seet si. Mhm. te duñu waxtaanee mbirum jàngat. nga xam ne mhm. biir ak biti ñu ngi koy askanale Serigne Moustapha Sène Xelcom. incha boo waxee ñu ne la càngatu Serigne ci wàllu cat ci wàllu ma ci yàq. bi xam nga sangat moom li may wax rek man dama ne booru asraar gi man dama cee màndi ci zaahir ak ci baatin te loolu Serigne sama xam-xam nañ loolu wér wàllu càngat nag moom moom dama cee def dama cee def ay jaloore ba tàyyi càngat gu mu mën a doon. moo xam cangatu fattaxu la moo xam cangatu gumba la doon cangatu kaaraange ndax ma lay mooy man bu ma aaree ni dama ko dama ko dama ko dama koy assuré dañ naan assuré dama koy def su ma la sangatee kaaraange dama lay assuré ni ku la liggéey soo mu ni ma dëgg dana faatu wala ku la liggéey dana sangal liggéey sa ku la liggéey liggéey ba dana dellu ci moom la liggéey bu du dal sa kaw ndax pourtant dañuy gis ni ñëw ne la man kat maanaam damaa bëgg ku ma liggéey liggéey bañ a yegg si man ma ne ko loolu loolu moom ala kulli xaal luy mën a nekk la hmm. a xam naa ne boo leen proposé ku leen faat dañuy bañ ndax xëy na seen xol yegg foofu hmm. waaye a inaane hmm. fayu waaw comme sangatu kaaraange a doon moo xam nekk ci xam da ngaa nekk ci bitim réew ak foo mën a nekk moo xam dañ ne la rab moo jàpp sa yaram. Mhm. wala dañ lay liggéey. Mhm. wala lu mu mën a doon ci kàttanu suñu borom sangan ñetti fan laa lay sang mhm. nga tàmbalee gis résultat ci kàttanu suñu borom. gën ngaa yàgg ñetti fan fekkee wàllu fatuhu nag xeet ndax nit ku ne ak nam toll ak na koy liggéeyee sangatam am na ñoo xamante ne seeni sangat dër muy métti yenn métti bu fekkee nag nit ki dafa nekk ci pouvoir mag mooy la xam président la moo xam député la moo xam ministre la moo xam maire la wala kenn ku mën a doon ñoom xëy na liggéey spécial la waaye lu mu ci mën a doon sangat gu mën a doon ci kàttan suñu borom yow boo déggee sama saara nga fatoo ak ubbeeku ko moom xam ndax boobu tilim du mën a def kon jeex na mm. léegi kon moom boo ko sangatee boo ko sangatee ba yaramam set lépp lu mu laal day mm. te benn mooy li may wax mooy kurus ngirug wilaaya la mm. waaye wërsëg ak bayre ku ko bëgg da ngay nangoo sangut sangut moom képp koo def suñu borom defal fattu ak bay képp koo xam na nag sangat yi ténn la moo xam lu jëm ci wàllu bayre la moo xam lu jëm ci wàllu kaaraange la moo xam lu jëm ci wàllu téye sa bopp la loolu lépp Cheikh Moussa Karim képp ku ci jokkoom saxul dana sedd bu neexee suñu borom taala ko taala macha allah sëriñ bi leer bi am na sëriñ moom maa ngi jégul sax ndax day day loolu lan ma ci war a wax. ndax loo xam ne lu yéeme la ci waaye nag sama mbir ñoo ngi koy coow it mënut a mu indi ci leeral. ndax it lu yàgg la lu mag ñi daan liggéey la. te it la goo xam ne ku ne war na ko mën a am ndax yéene nañ ko yëpp. ndax wuute bi mooy gàllaaj gi nga xam ne fi mu am buñ ko defalee aw ay da nga koy dégg rek moo xam ayu police la moo xam ayu tribunal la moo xam ayu coow la sax buñ la ko defalee ci kàttan suñu borom boo toogoon fii coow nar fee am da génn dem dañ la koy nettali waaye doo fekkee coow mukk loolu nag ñëpp daanaka ñu ne bitim réew lépp ñoo koy liggéeyal ndax foofu sagam suñu borom dogal nañu bari dafa doy waar jafe-jafe dafa am lu mel ni états-unis nga xamante ne maanaam dëkk bi jëmmi secret dafa ca war dëgg dëgg dëgg amul ci dibi ci biir nit ñi hmm. xam ne ray fa nit ak naan ci lox la ñamale ñooñu hmm. laa koy faral liggéeyal hmm. waaye ne ci kàttan suñu borom wuute bi daal mi képp koo xamante ne am nga ko na nga xam ne moom mucc nga ci lépp loo xamante ne wàllu ay la moo xam ay police la moo xam ay tribunal la moo xam ay lu mën a doon waaw lépp loo mën a nekk coow moom dañ la koy nettali rek amoon na fi daal ngay dégg da ngay jékki-jékki li ngay génne sax doo ko xam waaw gàlla gi nag sax Moussa képp moo ko fi liggéey xam naa ne waaw te wax dëgg yàlla moom gars yi ñu ngi ciy indi ay kii di ci di ci wax waaye nag moom li may wax mooy kii ñun ki ñu war a liggéeyal xam nañ ko ndax it gàllal la goo xam ne du ko néew ñu liggéeyal la ko ndax it ñun moom lépp lu ñuy def dañ koy fas yéene méngale ak sariya ak xaqiqa ndax ki ñu yar ki nga xam ne mooy tërbiye def ci ñun li ne si ñun daa am lu ñu yaree lépp lu ñuy wax lu ne day méngoog diine lislaam méngoog li nga xamante ne moom mooy sariya mm-hmm. ba ñu génn ak xeexa ndax kenn du tax ñu lay far waaye nag képp ku ñëw ci ñun ñu xool xam ne gala di wute gi war nga ko mën a am des na la ko liggéeyal waree nga amee ko noonu allah Serigne Moustapha Sène xel kawam yaakaar naa ni tontu yi am na solo trop. Hmm. Hmm. dinaa hmm. ñëw ci wàllu moodu moodu yi. jafe te loolu yóbbu famille. incha allah ñu ngi ci wàllu këyit mhm. ci wàllu liggéey ci wàllu bu mhm. xatal tamit xam nañ mhm. lool waaw sang bi xam nga loolu moom dama cee yàgg dama cee yàgg wax ndax muur muur yi man dama naan moom maay seen avocat bi leen fi nekkal ci wàllu yëpp nag nekk seen sëriñ ndax benn mooy tukki képp ku koy def li la yëkkati mooy nga dem ngir wuti ak loo terelee sa sa say njaboot waaye dem fa nekk fa ci ay jafe-jafe ak dem fa nekk fa ci ay problème ak nekk fa mënoo liggéey ak dem sax ba réew mi ñibbi si nga bokk wutaane loolu war naa mën a ñàkk waaye nag njëkk li may wax mooy képp ko nit ko xam na ngaa bëgg tukki ngay njëkk xool yoon balaa dara xew foofu am na solo dellu siwaat xool yoon yi nga war a jëm ndax am na ñoo xamante ne seen biddi war ta jéggi loolu dafa am am na ñoo xam ne nit ki bu fekkee dafa dem te biddiw ba ne fii da koy toqalil biddiw mu dem fekk ko kon nag képp koo xamante ne da ngaa jug ngir tukki li njëkk mooy nga seetlu yoon balaa dara xew def ay sangat yoo xam ne boo ko demee suñu borom dana def tawféex ba ba ba foofa ñu bëgg la mu lu mel ne wàllu bayre yi njëkk nag kaaraange li koy tëkkalee ko war a am ndax kaaraange ak bayre mooy tax réew moo dem mu mën neex ci yow wàllu liggéey nag ci Modou Modou man loolu moom xaas laa ci am yaa ngi dégg ndax benn mooy sangat yi may joxe ci wàllu liggéey mën naa laa wax ne gën ngaa yàgg du weesu fukki fan ak ñaar ci kàttan suñu ndox dong lay doon de waaye la may àndal nag mooy suñu waa su ma la joxee ci kàttan suñu borom boo ko jëfandikoo bala am fukki fan ak am liggéey ak liggéey bu mu a doon moo xam biir moo xam biir réew wàllu këyit yàlla rek moo xam nit du tàgg boppam waaye ci dama cay def ay dama fay jaloore mën naa dal waaw képp koo xamante nekk na sa ittee moo xam këyit yooyu déposé la moo xam ci réew mi ci bitim réew ci am bu fekkee da ngaa ne ci réew mi nekk étudiant jàng ba war a déposé say këyit ci kàttan suñu borom këyit yooyu bu ñu ci teyee bët bii def ci lañ cay def boo ko déposé mu génn ci bu fekkee da ngaa ne ci biir réew ma biirim foofu kayit yi jàppandi fa ci kàttan solo boo jokkee sax Moussa Karim kayit a yàqalaam ndax bari na ñoo xam ne seen liggéey ñu leen la ko boo jokkoo sax Karim ba xool xam li ko waral loolee dana deñ moo xam liggéey bu la nit def la moo xam liggéey bu la jënee def la waaw ak lu mu mën a doon daal ndax am na ñoo xam dañuy jógee fii dem ba foofa ñu liggéey leen fii yàq yàqal leen fii ci biir réew mi mm, mm, mm. waaye ci kàpp suñu borom ku ci mën a doon bu ci jokkoo loolee dana saafara insha allah loolu moom waxatuñ loolu moom loolu moom dana dem lool mm-hmm. mais Serigne Moustapha buñu mën a seet si te duma dugg xam naa ne faj ah, moom mën naa ne de ni ma maîtriser xilmul asraar noonu laay maîtriser xilmul mbirum faj ci xeetu tawat yu bari nag xeetu tawat yu bari tawat yu mën a doon ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala ndax suñu borom saa su ne sifaa ulay njëkk a bind ka tawat tawat ju doomu aadama mën dafa amul tawat ju doomu aadama mën dafa amul faj nag daa bëri ay xeet yu ñu koy defee. da ngay facc zaahir di facc baatin facc zaahir nag mooy nit ki da ngay xool ne kii tawat sangam moo ko jàpp dafa émurit nga wut ay gërëm émurit jox ko tawat ji nag tawati baatin mooy kii dañ koy liggéey nga xam ne lii liggéey la ci moom nga rocc liggéey boobee ci moom man nag ñaari faj laay faj facc zaahir si mooy bu nit ki ñëwee fekk ma xool ma am tawati yaram moo xam tawati émurit la interne wala externe bi génn wala bi dugg bi moo xam tawati asma la asma ju mu mën a doon asma nag man bi ma doon faj mooy bi nit ki judduwaale ndax xam-xam nañ ne sama diggante ak asma ndax man jaar naa ci xam nañ ko bu baax a baax a baax maa ngi dégg tawati asma ji ma dul faj mooy tawat yëpp nit ki da koo judduwaale ci boppam daa am boo xam ne ci bopp nit am boo xam ne ci dënnam lay nekk waaye ci kàttanam suñu borom mu mu ci mën a doon garab yi ci yàlla dénk boo ci ñëwee buñ la buñ la ci joxee suñu borom la ci def tawfiq bu mën a doon moo xam bi dugg la ak bi génn la kooku moom garab gi gën ngaa yàgg ñett fan laa la koy jox nga tàmbalee am résultat bu wér bu fekkee lu mel ni tey jii maanaam émurit internet boobu noonu laa ci noonu laa ci doxee ndoxum siti tamit bari na lu muy ci nit ndax dina waral maanaam nit ki yaram buy tàng dana ko sabab tànk yu ruux dana ko saw karaw dana ko sabab ay wee dana ko dina yàq ay wee dina yàq lépp loolu moo ci gën a néew ci li muy def ndax day dem ba day yàq yaramu nit bu fekkee ndoxum si la lu mu yàgg yàgg yàgg garab gi ñeenti fan laa la ko jox nga jël ko tàmbalee am résultat résultat résultat bu fekkee sa karaw day ruus karaw gi dootu damm su fekkee da lay def yaram buy tàng ci kàttan suñu borom dootu la ko def bu fekkee day dala dala ak xeetu manifester bu mu mën a manifester ci yow mm. ci kàttu suñu borom bu ñu jëflantee yow da a a mm-hmm. waaw macha allah Serigne Moustapha Sène xel ko lem <laughs> <laughs> ngi jégalu waaye mm-hmm. dari yéeme mm-hmm. ndax lem gi lem gi moom li mu làmboo maam coole coole bari na waaye nag waaye nag lem gi moom maanaam mbirum kër la ndax man dama ne tëri dafa bari ay xeet ndax nit ki mën naa mën mën mën mën na ko mën na koo juddwaale ñu xam ne kii du ko juddwaale kooku nag faj ko loolu karaama la ndax baatin moo koy def du zaahir ndax kuy mën a def loolu faaw nga am dogal ci xadara ba ñuy dogalee ngir nga mën ngir mën a a saafara lool mu wér ñaareel bi nit ki mën naa am kattan sàkka nit ki mën naa gis muy njaboot di am ay doom te te doom kattanu sëy mhm. yooyu itam day am njaboot day am doom fu mu toll te du am kàttanu sëy mm-hmm. gis koo xamante ne mënul a am kàttanu sëy loolu tawat la ba léegi mm-hmm. nit ki naa mm-hmm. am njaboot te du am kàttanu sëy kooku mooy ki nga xamante ne kii maanaam buy sëy a jot boppam ko joxee ci bis boobu ngay tàmbali yéwén moom sa kàttan bi mën naa jóg waaye dëgër ga war du am kooku tawat la kooku it moom Cheikh Moussa al Karim ci bis bi incha allah garab ga ma la jox ci bis bi ngay tàmbalee yéeg yéeg gi fekkee ne nit dafa tëlee ndax tële it damay wax ne bàkkaar dina ko def doomu aadama nit ki dina dem jaxasoo ak soxna si kilifa mbaa mu jaxasoo koo xam ne dafa ñàkk soxnaam loolu jural ko ak tële tële boobu bàkkaar koy def ci nit loolu it am na boor bu ñu mën a jaar ba dindi ko tële bi nga xam ne dañ koo liggéey loolu moom mën lu yomb la ndax dañuy xool liggéey ba xam ne liggéey bi diw sanga moo ko def diw mooy ndeyam diw mooy baayam ña xam Malick Diakhaté xam nañ li may wax bu baax loolu saafara ko mooy fexe loolu dañ mooy ñu dindi télé googu ci moom tey ci nit ki liggéey mën na koo def mbirum rabit mën naa téléloo nit waaye ba tey ndoxu siti mën naa téléloo bu defekkee dafa téléloo nit it loolu ko dana yomb ndax dañ koy xool xam ne moom ndoxu siti moo ko jàpp ñu fas yéene télé ndoxu mu wér dina def télé ci nit waaye lem gi nag moom xaas la moom moom moom képp kon ko jox moom si kat nag suñu borom sa kër moom dee su la fay benn yoon moom loolu moom moom du am moom mukk waaw moom duñ ko jox nit mukk sa kër ñu la yem ah, sëriñ <laughs> seen xel ko mm. waxtaan bi am na solo trop macha mm. allah leer li am na solo trop macha allah yaakaar naa ni mm. ci cappaandaw émission bi comme ni ko waxee léegi nekk na li nga xam ne tënk na lool lool lool walaay walaay naa duñu def lu ñëw bàyyi la nga tàggatoo ñu mbokk yi def na fii sëriñ bi lan ngay tàggatoo ak tamit lan moo yóbbul bis maye ah ndeysaan <laughs> Euh, sëñ bi tàggatoo bi moom tàggatoo bu dul tàggatoo la ndax li ma waxoon sànq dinaa ci ñëw mooy jafe-jafe yi nga xamante ni sëriñ si dinañ ko indi man danaa ci danaa ci indi ay leeral danaa indi jafe ndax waaw. bëri na ay jafe-jafe ngi koy jànkonteel dara warul ko dugg ñenn sëriñ si waaw lu loolu mooy xam nga maanaam asraar dañ koy jàppee tuuli pël fa la neex a jaar man nag na benn xam nga loolu li ko waral mooy dafa jafe-jafe dafa am ndax asraar li wax mooy xam-xam bu ñuy jàng la asraar du xam-xam bu ñuy for du xam-xam bu ñuy doon it ndax doon na moom li ko mën def mooy këyit mooy man. sama baay day nekk ñëw nekkum Serigne Lasrar ba faatu lii ay kayit la mën naa koo dojo waaye xam-xam du ko yóbbaale ci boppam te Serigne si nan xam ne it ñun ñii di ay seexum rab bi xam si ay ñun ñii di ay seexul asraar xam digg digg xam-xamu baatin xam nañu yenn ay caaxaan la ndax bu yàggul ci gis naa benn rajo bu daaw gis naa benn maara bu génn daal di jàngale waxiyan surtout waxiyan daal ne gars yi ni ñu ay naat toggee ko ko Serigne nit askan yëpp sonn ci lool te moom la mu jàngale leer na ko leeru yàlla ne déewul noonu ndax secret boobu xaw ma nag moom mën na ko jotee waaye dafa damm ndax secret fooy saytu foofu bu doxee noonu ci rajab te nit ñi sonn nañ ci a xam yi ma doon tamit sànq na ci nit ñi bàyyi xel bu baax tabu kenn du ko xoolee noonu mbirum bidu doomu aadama kenn du ko génnee noonu ñaari bi tiktok bi bari na si ñu fa ñu fa ñoo xam ne yi mën naa ne ci la ñuy yàqoo lu bari gone yi nañ moytu tansam yi ñu leen di jox ci ay tiktok ak youtube ñu koy jël di ko jëfandikoo te amuñ ci lu leer kuréel ku mel ni ka ma xam lu ma jox mën nga cee tey def ci nànk ndax keer gis naa benn waaye bu ne taslam sax sam ko ku koy liggéey julli yoon baax na te xanaa xamul lan mooy kooku sax xamul lan mooy taslam sax sam taslam du turu jéggi na boo ko ci turu xuddaanu yi nga xam ne ni dara gënu koo gaaw ci fal nit def ko buur may ko alal waaye loolu la mën a dofloo nit yàq ak dundam léegi gone nga ne dafa tëb tëb dégg loolu jël ko di ko liggéey te amul xijaabu turwa amul mun taw yi turwa amul rawxaan yi turwa di àndal kooku la ku mënta a joxe asraar na nga yem ci asmallaahu wa yi ñuy joxe kalsam boo demee ba di ko jàngal da war a xamale cosaanu kalsam ba kalsam te nit ñëpp koy liggéey ndax nit war ngaa xam sa cosaan yow xam sa deret xam sa tabu xam yow yéen xëytur yàlla nga àndal gis naa keroog kuy jàngale jalaal di ko di ko joxe ci ci ci ci junneeg téeméer ak fukk ngeen loolu lu wér la waaye damay wax ne jalaal dafa mat a téye te mat a ndax jalaal du turu gone ndax jalaal mbooleem yeneen yu mës a jaar ndax jalaal ibrahima dafa am ndax xanaa yaa kaw ko yàlla ka lu yaa goog ngay gis loolu wax jalaalu xeesaa jalaalu Moussa xëy ka yaa tal masala yaa xóolaakul yaa tal kaay loolu jalaalu Moussa la. Mm-hmm. jalaal ji nga xam ne nag mooy jalaalu Moussa salaam mooy ahamul ko. muy tur boo xam moom la waykat ba wax rek jalaal jal na fii bàmmeel te dof loo ñu moo fi ëpp. jalaal dañ ne mu jot dina dof loo junni nit dina rey junni nit dina teddal junni nit kon nag na ci gone yi def nànk te talsam yi te sëriñ si ñoo xam ne asraar du xam ko bu ñuy faraatu sëriñ si bàyyi na xamul dara yàlla nga jéggal ndax benn mooy la ñuy wax maîtriser wuñ ko dëgg rek ndax xam-xam dañ koy jàng xam-xam kenn du ko faraatu mm. xam ko jëlee ci ay ci internet mm. xam-xam kenn du ko faree ci ay téere ginnaaw lépp da ngay dem toog ci seexum rab bi mu jàngal la xamal la baytulu turwa nga di ko toog ko liggéey nag dinaa ci wasu sama xamante ne dinaa leeral toppale yi nga xamante bari ko nekkee di nax nit ñi ak di lekk seen xaalis ak di tur wax mooy li ci asraar soxla bariwut te lu mu ci mën a doon danaa ko jàngale leeral ko bi nit ñëpp xam ne nii la demee loolu nag bu amee képp ko xamante ne nii naxati nañ le yaa bëgg ko la nax man nag li may baaxee askan wi gis naa ne jamono metti na te it mag ñi waccoon nañ fay xeetu asaar yoo xam ne képp ko koy jëriñoo ku ne da nga da nga da nga ko ñàkk lu njëkk mooy li may jàng mooy wëliyu latif lii secret bu gàtt laa ci jox nit ñi képp koo xamante ne xaalis sa itte la nga xam ne bëgg nga suñu borom dina ko jàpp na saa ne dama laa wax saa yoo xëyee boo jullee fajar ba noppi na nga liggéey fukki yoon ak ñaar muy douze fois soo paree nga teg ci yaay wëliyu yaay litiyu cent soixante quinze teg ci yaay xam yi xam nañ ne man Moussa al Karim du ma joxale loo xam ne lu jaadul la mm. lii képp ku ko téye ku ne danga danga ko nag yow moom xaw ma kan waaye boo ko jàppee ginnaaw julli fajar gu nga def ko ci kàttanu suñu borom da nga dem ba saa yoo ko defee gis nañ ne ñor na te mag ñi xaal daan nañ ci liggéey lu bari ma ci di jàngale surtout boo xam ne képp koo ko def xëy ñu naan la dépasse amul ci kër gi dakk na mooy maam da koy wut nag boo ko daggee nga bind sóoratul zilzilati monsieur Isa zilzat la zilzalaha nga def ko ci biir xaal bi sa digg kër nga suul ko fa lii mag ñi wax nañ ne gépp kër goo ko def gën ko dundaloon suñu borom dana ko fa barkeelal lool ba tey sirru xaalis kum tiwi taaka yaay ibi danaa ci jàngale kayfee bu yéeme képp ku ko bëgg a liggéey ni nga koy liggéeyee mooy sa yoo jullee fajar ba noppi ak saa yoo jullee gee nga koy sikkar kum tiwi yaa tax ka yaa boo xoolee cent soixante-dix-neuf lay nekk waaw soixante-dix-neuf lay mooy kum tiwi mooy xët bàyyi nii turam ñoo xët bàyyi nii ci sekkat umul musaay la li tax nag ma di ko wax mooy damaa xam ne asraar li nga ci mën a jëriñoo bariwut kon nag jox ko jaam yàlla ñu jëriñoo ko te it lii wax lii may li may jox doomu aadama yi ñu koy jëriñoo ndax damaa bëgg nit ñi ñëpp tàggali koog jafe-jafe mais kuutee takkee ay li ma ci jàngale mooy saa yu jullee fajar ba noppi def istixfaar téeméer def saatu ala nabi téeméer liggéey comité yi takkee ay lu cent soixante-dix-neuf liggéey xëy seen soixante-dix-neuf soo paree téye saatu ala nabi yaayu xëyum loolu it képp koo xam ne sax saxoo ko ko suñu borom dina la defal tawfeex goo xamante ne wàllu xaalis moom ak wàllu dépense sa kër dana jàppandi lool. Quraysh mhm. nit soixante dix neuf bi képp koo saxoo yàlla dina la dimbali ba problème mu ñàkk moom da nga da nga tàggale ko moom tàggale ko ñàkk ci lu wér a wér a wér léegi ba tey cangat yi nga xam ne dinaa ko jàngal doomu aadama yi cangatu cat li ma ciy njëkk a jàngale mooy faatahu innaka du lésina kafaru waaye nag baat boo ba boo teg dañuy bind wakun maisan lana min salisil achadin max sidi famille wa sera soo paree nga bind juróom-ñeenti keef keef bu ne nga tomb ci kaw ñetti kaw tomb tomb suuf ñetti tomb boo paree nga wut fukki puso ak ñaar def ko ci saafara si sangoo ko ci kàttu xam ne sangoo ko ko cat moom dana denc te may wax ne man cat dama koy mocc ba mu set ci nit ma ko mu a deñ ndax léegi am na cat fu doo kii ko dama koy mocc damay mocc cat ba nga xamante ne ba mu set wecc ci nit ma doog a ñëw ngir sangar ko nag bu ko da sang di di daal di wér sang di nga xam ne dinaa ko jàngal nag dana yaatu lool ndax faatiha dinaa jàngale ba nga def kulli ayatin nga def alam nasara waaye alam nasara baat aaya boo bind da ngay bind ci biir yaa fataaxu yaa rasaaxu loolee soo paree da ngay bël wërëngal ak was-wasoor nga ciy def ci kàttan suñu borom loolee képp koo xam ne yaa ngi koy sangoo juróom-ñaari fan gën gaa ñëw da nga am ubbeeku léegi nag li jiital mooy képp koo xam ne bëgg nga loolu am da ngay jiital wàllu sangatu cat yi ba noppi ndax nit bu fekkee sa yaram dafa taq da gis ne da da ngay sangatu ba ba ba li sa yaram dañ nga doog a sangatu wàllu cat nag ba ci ñu bëri dañ may tawat ci wàllu gone yi nga xamante ne maanaam da nga yor sa xale bu jigéen am ci moom yaakaar mm-hmm. ñu saay-saayee ko mm-hmm. loolu it ci jàngale boo xam képp ku ko def sa doom du ko tëddee ci kàttanu suñu borom mooy lii ñu naan xulóot da nga koy bind soo ko bindee saafara daal di wut moo xam silib la wala caleçon mm-hmm. nga xooj si boo paree weer ko bopp suuf li fekk amul borom kër loolu maa ngi koy baaxee ni ñëpp képp koy tuxit wala nga naan yàllaaw yaa muxaalibul xuluf laa lay jox képp koo xam ne bëgg ngaa tàggali ko tux saak cigarette wala ngay naan sàngara yàllaaw yaa muxaalibul xuluf bind ci xaat ba xaatim batalu saajun waawul nga wéyal ko yàllaaw yaa muxaalibul xuluf ci kat nu sonom di ko naan boo koy naan xulóotit képp koo xamante ne da ngay tux wala ngay naan sàngara wala ngay njaaloo nga bëgg a tàggali ko moom digal naa la nga bind fukki xulóot ak ñaar soo paree nga wut fukki guro ak ñaar yu xonk ak yu weex soo paree nga nga nga maanaam nga nga sang nga nga nga xocc guro yi di ko di ko di ko di ko jëfandikoo ci kàttanu suñu borom loolee képp koy def moo xam dañuy tux moo xam da ngay naan sàngara bu fekkee nag luñ la liggéey la loolu moom faaw ñu dindi ko ndax nit mën nañ koo liggéey muy naan sàngara nit mën nañ koo liggéey muy tux nit mën nañ koo liggéey muy njaaloo waaye bu fekkee loolu la soo jógee sax mosuwal kërim moom loolu dana deñ ndax buñ xoolee ba xam ne yow liggéey bi lii liggéey moo tax nga di ko dinañ fexe ba dindi liggéey boobee waaw loolu daal ñu ngi koy baaxee askan wi yëpp waaw kay ah, Serigne Moustapha seen borom xel comme. Mm-hmm. gis nañ ni temps daanaka bëri na yoo xam ne dala mm-hmm. fois boo ñu la dara wala ñi nga xam seen bët. xam nga loolu moom man la ak jagleel ci suñu borom defal. ndax bari ànd loo xam ne luy xew fii lu ci bari suñu borom dama xamul la ca war a xam danaa ci baaxee nag askan bi ak dimbale leen ci ngir ñu tax fi ñu loolu ci waaw loolu xam nga loolu mbirum tur koy def ndax man ku ma xam xam ne say mbir lépp ci tur yàlla la ndax man li may wax rek asraar bu dee bëxru dama cay naan ma màndi ci lool tàggat ci ay nit teral leen ci ñu ciy liggéey di ci jariñu suñu borom nag daf maa defar ak jagle ci wàll woowu ndax gis googu moom loolu yàlla la ndax làmb ji weesu am na ku ma ko waxoon ne woon naa ko promoteur bi da am na yoo xam ne boo génn góoma làmb ji yegg yaakaar naa nam demee woon nam demee ñëpp gisee nañ ko noonu kii tamit loolu laa koy digalaat am na sarax yoo xamante ne faaw ñu jéem ko ci génne ci làmb ji waaw sarax yi nag moom mos moom waaw ñu jox ko boo ko defee ñu dimbalee leen ci ndax boo ko deful dana financé xaalis sama far te la bëgg du ko am lamb ji di ñëw ci Modou Lo Ama Baldé la ma cay wax moom daanaka du bari ndax ma du ma wax ci wàllum ilmul xayb waaye képp ku cay dem na nga fàggandiku bu baax loolu maa koy dénk ñëpp te képp koo xamante ne gis nga maa yaa ngi génn sa kër soo ne wut ndox mu sedd juróom-ñaari bu sarax ko def ko génn doo ko def wala sinon ragal naa ne violence dana am lool. làmb ji nag moom li ma ci wax mooy nit ci ñëpp def naa ko te tey sarax yooyu nag ya ya la ma waxoon fee laa wax fii rek ki nga xamante ne moo ci ne wala estaf ba suñ jokkoo lañ ca war a def ba loolee jàppandi danaa leen ko xamal ci kàttan suñu borom mbir yi tamit lañ war a def loolee lañ ca war a def ba mu jàppandi ku jokk ci Moussa Karim danaa la na nga cee doxalee waaye a kii donte nag musuma cee wax nag waaye sax dañu ma cee laaj mënu ma cee ñàkk wax kon faa ma wax ci waaye li ma ci baaxee mooy daal ña ko yor nañ jokkoo ñu wax leen lañ war a def ba loolu suñu borom da ci taw sax ba ma yegg na war a yeggee. waxtaan bi am na solo trop macha rek ndax si kàttanu suñu borom xëy na balaa yàgg dinañ defaat yéen émission yéen jotaay lu bu jàllee dinañ indiwaat ay leeral ci leeral yi ñu defoon kon daal ñu ngi leen di sant yéen baax di leen gërëm di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha xalifa am suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak wér di ñaanal kilifa yi nga xam ne moo waral jotaay bi muy suñu Malick Guèye muy suñu Saliou Mbacké muy suñu kilifa du suñu sëriñ di suñu lépp suñu borom dolli ko defal tawfiix ba yéen nga xam ne am na ko ci xeet ak xeetu sëriñ bi yëpp suñu borom defal ko ci tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu